présidence de la république du président ci ko doon roppee Colobane ak Sandaga du Sandaga du Ferguson du Victor Hugo du présidence de la république ñu parle la république mu résidence du président de la république bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ndey pale ba xam naa yàgg ni laa ilaha illallah mu nekk la résidence officielle du gouverneur général Afrique centrale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat fi nu xaaran ba xam kii woote bëgg jot président de la république kooku la doon fan lay wootee salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw sëñ bi na nga def kay. sant yàlla bu baax kooku. ma man la Abéjan Michel Diouf nekk fii ci paroisse bu Pikine. mu ne. Abéjan Michel Diouf nekk fii ci paroisse bu Pikine. ah Abéjan Michel. waaw na nga def. Abéjan lu waral sa woote ci biir kii bi ci biir. Euh, palais bi mais fils que Dieu vous bénisse. jërëjëf Abbé. sur le sur le sur jërëjëf Abbé jërëjëf. je vous nu ngeen dundee fête gi ba respecté ngeen les mesures barrières. waaw xam nga rek ñun ñun ñun moom dañoo am yara ah. nga ba jàngo bi lu ñu wax rek moom la moom la moom la xamante ne. loolu leer na moom la taalibe di doxee. te yéen dégg naa te yéen dégg naa sax au lieu de mesure barrière da ngeen koo gën a dëgëral def les mesures grillages. on a respecté les mesures barrières et les euh, euh, mesures barrières et les mesures barbelés sax def nañ ko ci. barbelé les mesures barbelées et les mesures grillages. pour kenn bañ a laalante. xam nga xam nga boo gisee lii ñu def loolu. <laughs> Uh-huh. moo tax moo tax xam nga Covid 19 bi dafa doy waar. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla état bu toogee. Mm-hmm. nit yi di ne ko da nga ko war a da nga war a xool li nga xamante ni moo moo moo mooy liy doxal dégg ba nga def loolu. Mm-hmm. loolu moo tax ñu ñu doxalee ko noonu. loolu leer na abbe loolu wér na. moo tax même biñ nekkee ci église bi. kenn ku ne gis nga ni ñu ko doxalee kenn ku ne jël mesure barrière am. waaw waaw waaw. ñi ñi war a toogee nii toogee nii ñi war a toogee nee toogee na. loolu leer na. xanaa gisoo même seen xalaat yooyu ñu def sax bi yoon defuñu ko. ah defu leen ko. dia punya te venye kwenda kuburashitakia limuzi baria. Ah. adonan na nanti. oh, Di sana. Kamba Senegal nak nak musir misil mai tani nak tinggi ya nyom Yang saya cakap ang nyom muda apa. Na kamo nyom buda mas kidi kau ko vete nyo. buku Kon bu bu bu bu bu bu pak nyewe lah mim sus. Bu novel bu novel nyewe te lah mim sus. Kon ka tenga alama ka tenga alama ri Senegal. Alo abe. Wa? mana yang bu buba. Mang bu buba kai mofis. Na kon ba nah kon ba na. naa lay bu baax moo fii waaw même mbaam mi sax xaw nañ ko yombal tuuti de. ah ngeen ko. yombal nañ ko tuuti ñu ko doon jaay yombal nañ ko boo demee bi ñu na fay. la daan jar la daan jar juróomi junni daanaka junni lan la ko doon jaayee. Ah. junni lan la koy jaayee ci ci ci ci Noël bi. allo yaa ngi may dégg. ah bu baax maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg léegi. kon kon kon mbir mi de ala doomi na ren. waaw téléphone bi réseau bi da doon naaw. waaw ala doomi na ren de ren de ala doomi na. Ah. waaw ren de ren bi ala daw de. ah kon kay abe kon kay yéen waxatu leen dara. ñun kay waxatuñu dara te duñu waxaat dara de. waxuñu woon dara it kon yow léegi lan ngay gën a ñaax nit ñi ci feebar bi jàngoro bi ne ci dëkk bi. moom daal li ma leen di ñaax mooy nañ moytu bu baax a baax a baax. Ah, ah. nga xam ni jàngoro bañ ci dëkk bi. nañ ah, jël mesure benn bi jur bar barbale benn ma jur giriyaar lépp boole ko nag boole ko lépp nag xam nga bu mu ko defee koron dañu woon ginnaaw da duñu jërëjëf jërëjëf Abbé kon Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm jërëjëf Abbé jërëjëf yàlla na fi yàlla def xéewal